ba tey laaj yi nga xam ne moo bàyyi ko ci tout tànk yooyu nekk nekk France seen bi fukk ak ñaareel mooy lan moo tax murid yi bu ñuy way xasida yi mooy buñ koy jàkk lan moo tax buñ koy way di yuuxu ah, léegi ñoom eh, waxoon nañ ne xasida tudd yàlla la suñ bi wax ne kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat man tudd yàlla la te tudd yàlla dafa am ci ruux rawatina nag xasida yi li ci ëpp salaatu ala nabi la raamat qasaidi salaata wa salaam li dil mazaaya loolu sëñ bi wax te salaatu ala nabi waxoon naa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni boo jullee ci yonente bi benn day julli ci yow fukki yoon boo jullee ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki yoon suñu borom julli ci yow téeméeri yoon jullik suñu borom nag suñu borom tabaaraka wa taala jullik ak julleem ci yaw jaam bii loolu day lu rëy rëy la ndax leer la gome di sotti ci sa xol xëy na wala nu mën a demee rek lu rëy rëy la moom waaw li yuxrijakum min az-zulumaati ila an-nuuri هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور boo ci boolee nag li ma waxoon ne sëriñ bi mbindam dafa am jagle ku ci ku ko suñu borom muy leeru kese wajaxal tawaadi fii anwaaran tanuur maanaam ak ay waxam leeru kese la ndax dafa jóge ci bëbbug leeri suñu borom yi tabaaraka wa taala di wax lam taktubil aqlaamu bil mi faydillahi lil amdaadi yuxriju jumlatan li nuurin min zulam xattiya insha alladi mahal alam maanaam leer la goo xam ni day génnee ci lëndam jëme la ci leer ndax ak tudd yàlla la salaatu al nabi la itam yàlla nangu ko itam léppam di luy bégloo rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu kon buñ koy wax jeexit ji nga xam ne moo ciy juddoo ci ñi koy jàng ak ñi koy déglu yëpp rek dafa am jeexit ju muy def ci seen xel ak seen xol rawatina nag buñ ci boole di teewlu sëriñ bi loolu dafa am jeexiti xol yoo xam ni ku mësul nag yoonu suufiyanke yi mënoo koo xam laqa araf wa man arafa xëtaraf lim njëkk laajte mooy way giñ koy way jàng giñ koy jàng lool it ma leeral la rek ne la loolu ci sunu su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk <laughs> moom it ndax sayiduna Euh, Muhammad sallallahu alayhi ci kanamam dañ fi daa dañ ci jàng xasida ak ay way mu saxal ko ayewu leen ko loolu ci lañ jële ne jàng ko ba ci biir jàkk yi sax dara ne ko ci sayduna anas ubnu malik radiallahu wax na ne bi ñuy tabax jàkka yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daa àndoon ci ñi doon jël mool yi ànd ak ñoom liggéey bi waye bobu dañ doon rajas di wax naan allahumma la aysha illa ayshu l axira fansuri l ansaara wal muhajira lolu sahihu imam bukhari ak sun ak sahih muslim batay gis nañ ku mel ne sayidna salama ibnul akwa radiallahu anhu wax ne dañoo mas a génn ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa dem xaybar Euh, nee na biñ doxee ab diir maanaam ba dem xaybar nee na ñu dox ab diir am ku waa Amir ibnul Akwa ne ko xanaa doonu digtal dara ci sa yi ngay wayantoo Amir digtal leen ay way tam la nag di sadd ay ay bayit di wax ne allahumma lawla anta mahtadayna na wala sallayna faxfir fidaun laka maqtadayna wa thabbit al in laaqayna wa alqiyan sakinatan alayna inna ida siha bina utina wala atina wa bi siyaahi awwalu alayna yonente bi ba mu déggee muy sadd bayit yooyu ci sadd gu neex di ko jooru ci la wax ne man kan mooy wax loolu ñu ne ko amir ibnul akwa mu ne yarhamuhullah yal na ko yàlla yërëm mooy loolu kon neex na sang ba sallallahu alayhi wa nee na am ci gaay gaay kenn ci saxaabi yi mu déggee yonente bi ne yarxamuhul nee na eh, mu wax ne wajabat ya rasulallah maanaam yarxamuhu lahu ji dafay junju ne moom ca a faatu fi ne ca ca ca xeex boobee la faatu ci la faatoo loolu tegtal la ci ak tegtal yu bare bare bare sayidna euh, kenn ci taabiun ku ñu wax Saïd ibnul Musayyib wax na ne euh, sayidna Omar mas na romb ca jàkka ji Xasaan ibnu Saabit sayidna Xasaan ibnu Saabit romb na ko ay ay way sayidna Omar xool ko bët boo xam ne xëy na mel leen daal nam ko bët ba mu ko xool daal wane na ne moom lu na toog gi mu toog ci toog ci biir jàkka ji di wa di di sadde ay way di jàng ay xasida nee na Seydina Xasan bi mu ko gisee ne ko ah, wax Seydina yonent bi dafay nekkoon yonent bi dafay nekkoon ma di ko jàng ci kanamam fii ci bërëb bi ci biir jàkka ji te waxuma dara daal di geesu Seydina Abu Hurayra ne ko maa ngi lay ñaan ndax déggoo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci moom ma sadd fii ay ay mu ñaanal ma yàlla ne ma allahu xil qudus xanaa dégg loolu Abu Hurayra ne ko ah kay dégg naa ko de ko dégg waaw gis nañ soxna Aïsa radiallahu anha ci xadis bi imam muslim netli ak ñeneen ak ñeneen ñu bari wax na ne kaana annabiyu sallallahu alayhi wa li xasaana minbaran fa yaquumu alayhi qaa'iman yufaaxiru an rasulillah صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شون عايزة وحنة يونتبي ذا تقل سيدنا حسان دكورا تقل أمين بر تبير جاكجي تدقي تقل وحنة وخل تبين رواية وخل قل وروح القدس يؤيدك ولد أيدك waaye ci riwaay bi may nett li ñoom da ko wax ne dafa wax ne soxna ay sa dafa ab mimbar ci jàkka ji moom sayidna xasaan ibnu saabit xasaan jànkatu xasida la woon moom xasaan ibnu saabit ci biir digg jàkka ji ab toog waaye ne ko toogal muy wax nag la muy wax di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na yonente bi di wax naan suñ borom day dana ko dëgërale ruuxul qudus li feeg mi ngi wax di eh, défendre ak di jañal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh, moom suñ borom dana ko dëgëral qudus dana ko jàppale dana am lu ko defal ak yu bare bare bare bare ku melne ne ibn zuhair ba muy tuub si ci digg jàkka ji la fekk yonente bi waaw daal di sadd xasidaam gu am solo googee tàmbalee baanat suaadu fa qalbi lyawma matlamun israha lam yufda makbulu ba àgg ci inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufi l hindi maslulu yonente bi simmi mbubbam jox ko sallallahu alayhi wa sallam mbub moomee ba léegi si wax na ne moo nekk turki mooy mbubb mu ma ñuy siyaare foofu ca turk ca muawiyat ibnu abi sufyaan wax ne moo ko jëndoon ca njaboot ga ginnaaw ba nag ñu koy donante bam fi na nii ma nga turki loolu it wane na ne kon sadd gi ñuy sadd ay bayit yoo xam ne lépp tudd yàlla la ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi ak julli ci yonente bi loolu def buñ ko doon defee ci biir jàkka ja sax manam tiyaba je day doli ko rek waaye luñu ñu digle la imam sa'tibi ci kitaabul Ictisaam nettali na ne abul xasan al al-qarafi as-suufi daana netli jële ci al-hasan al basri rahimahullah mu wax ni ay nit dañu ma sa ñëw ci sayidna umar radiyallahu anhu ne ko يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى dañoo am imam boo xam ne bu jullee ba sëlmal rek di tàmbali di wayantu di di way di sàdd ay way di wayantu ko waxee Omar neen waaw kooku lan ko defee nan ngay jullee sëlmal rek tàmbali di way nee na ñu ne ko diw sàngam mooy leen kaay leen nu dem moom Seydina Omar nee na euh, ñu dem ba agsi ci waaji bëgg ñu woon ko bett rek mooy xam seen mbir waaye nee na biñ ñëwee ba moom Seydina Omar rek saxaaba yi biñ ñëwee ba gis sang boobee fekk ko mu jublu penku waaw maanaam da ko ba ñëwee ba ci moom rek laa bëgg wax dañ ko gàttandu Seydina Omar ne ko amiral muminina waaw luy doon yitte ji luy sa yitte Seydina Omar ne ko yow kat waaw fekk sa sëñ boobu da ko wax ne ko mënoon ngaa bàyyi ma ñëw mënoon nga ma woolu rek ma ñëw mm, ngay ñëw boobu Seydina Omar mooy amirul mu'minin mooy bu mooy kilifa ju moo jiite julli ñi boobu Seydina ne ko man kat li ma yëkkati lu rëy la te mooy dama dégg ñu ne yow eh, am nga loo def daal loo xam ne naqari na ma lool te mooy dama dégg ñu ne boo dee jaamu yàlla da nga ci boole am po mooy dangay ngay julli ba sërmal di way Eh, mu ne mu ne ko déet loolu de moom sang bi man duma ko def duma def may waaye damay li may wax de ay bayit la yoo xam ni dama ci waar sama bopp rek la jublu ak dagg ci sama xol Seydina Omar ne ko bayit yi lu mu doon wax ko bu dee lu ma ànd ko yow bu dee loo xam nag du lu baax ma tere la ko mu ne ko bu ma jullee ba sëlmal damay wax ne wa fuaadi kullama aatabtuhu fi madal hijraani yabgi taabi لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي يا قد ما هذا السبا فني العمر كذا في اللعب وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي ما أرجي بعده إلا الفناء ضيق النسي ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أبدا في جميل لا ولا في أدب نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي نينا بيمكو خاي بيد بي مجو سيدنا عمر دا كوي بام دا نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي دا دي جوي موم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه نخ بيدي دا ام لفا دا فا ام سورا لول تا كي خمنا دوين كو مانا تكي كون جمي سد اي بيت yoo xam ne lépp tudd yàlla la lépp julli ci yonte bi la lépp ñaan la lépp lu bëggi xol loolu moom lu am ci silaay ci diine la waaw Seydina Muhammad daanañ sàdd fi wetam moom ci woom sax daana sàddi bayit moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ndax eh, wax nañ ne ku mel ne Seydina Anas ibnu Malik wax na ne ca umratul qada ba yonente bi umra ji umratul qada ba muy dugg màkk abdullah ibnu rawaxata dafa am bayt yum doon wax ci wetam xallu banil kufaari an sabili yowma nadribkum ala tanzili darban yusilu lhaama an maqili wa yudhibu lxalila an xalili neen seydna omar ne ko yow fi kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay wax ay way yonente bi ne ko xalli anhu ya omar ne ko su yonente bi ne ko bàyyi ko lii muy wax moo raw fees moo tax lu am solo lay wax bàyyi ko waaw yonente bi ci moom daana wax ay way lu mel ne wa yatika bil axbaar yi man lam tuzabidi sa sa nga sa wa yatika bil axbaar yi man lam tuzabidi bay doowu yonente bi daana ko baamu ak lu mel ne li Buxaari net li wax ne yonente bi daan wax ne ashaaru kalimatin takallamat biha al arabu arabu arabu qawlu labidin ala kulli cheyin ma xala allaha batilu baytu labid boobi yonente bi daana ko wax ala kulli cheyin ma xala allaha batilu kon loolu bari na léegi nag lan moo tax ñuy yuuxu ñoom muridi moom mooy loolu mooy jëmmi tudd yàlla yi dafa am jeexit ju ci am leer goo xam ne da koy tàbbal ci xolub ki ki tudd yalla tuddu gu bari der googee nak léeg-léeg day ëpp doole nit ñi nit ñi daanaka ay ndab lañ ñu mel ne mo suñu min as fa sala tawdiyatun bi qadriha kenn ku ne ndab la nga yor rek lu na toll ngay mëna duy bu ko ëppee nak day tour lool moy gàttal gi leer gi nga xam mo ak sey ñoom am ci ñoo xam ne mën nañ koo dékku am na ci ñoo xam nak seen ruux xëy na jeexeeti tudd yàlla googi ba tax na euh, mu feeñ ci seen yaram benn mu nekk ay jooy wala seen yaram yëngatu wala ñu dootuñu sax ànd seen sago wala yu demee yooyu yëpp mën na ci am donte loolu nag ak doyadi la li li mat dëgg-dëgg mooy mën a dund loolu lépp te euh, loolu lépp di xaw ci sa biir te kenn du ko xam ci sa zahir إمام الصاطبي موخن يتم كتاب الاعتساب وحنا الوجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهدة روحانية كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البكاء وقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب وبذلك وصف الله عباده في كلامه حيث قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله wax ne wëjd te mooy loolu xew ci ñi jàng xasida ak ñi nga xam dañuy tudd yàlla tudd bu bari xol la bu bu bu bu dafa ak am ngelaw lu ci ëpp rek yëngal xol ba ruuxam nag yeewu eh, nag bu yeewoo nag la muy jan lool nag ci leeri suñ boroom moom ruux gi eh, loole moo jur li xew ci moom loolu moo jur benn mën naa feeñ ci jooy mu feeñ ci yaram wu yëngu wala yéni demee nee na loolu it moo daa feeñ ci saxaaba ya radiallahu anhum ñu jamonoon teg yonente ba sallallahu wa sallam nee na moom la suñu borom di juñu itam wax ne allahu nazala ahsana alxadisi kitaaban mutashabihan mathaniya taqsairu minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum a ñu ko tekki ku mel ne cheikh aminul kurdi ci ci tanwirul qulub wax na ne li ruux gi jan lool ci leeru suñu borom loolee benn man na tax ruux gi jaaxle wala mu tiit wala mu am yaakaar ولا مو بك ولا مو ينغو ييب موي اندي لولو الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لول نك مانا ديم صاح با يوبو سين خيل واي دانيي ديلسي دي ديغنتي بوبا نك لاني فاي واخ اك لاني فاي ديف لول كين درن كو جابي نغو كين دو نياو نيورتي تي نيوميت فويل قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين انزل من السماء ماء فسالت توديه بقدرها ruux yi comme ay xur rek xur yi moom bu ndox mi ñëwee xur mbure la nga toll rek na nga toll rek noonu ngay duy ci ndox bu ëppee nag li nga am ci ndox bu ëppee nag day tuuru loolu mooy gàttal gi waaye nag sëñ bu mag bi itam euh, xasidaam yi wax na ne suñu borom da ci def jeexit ju rëy rëy rëy joo xam ni àgg na ci xoli ambiya yi da leen di yëngal ak xoli malaayika yi هاجت قصائد قلوب الأنبياء مع الملائكة بتي نيغا خامنا نيو يانو عرس دا ييغل سين خول هاجت قصائد قلوب الحملة للعرس وهي بشر للكملة هاجت قلوب جملة الأملاك قصائد بنور ذي الأفلاك كريلو سون بروم با نيت ñu baax ñepp ko xamne am nga dara ci baax rek soko deglo te tewlu ko man na yëngal sa xol moom xaajal xasaayid quluba saalihin wali yaqulullahu sudi kulli hin képp ko xam xam na xam ne am na dara ci texe daal xasida yi suñ suñ mën na yëngal sa xol xaajal xasaayid yi qalba kulli man lahu saadatun ndax xaras sax ndax yooyu ñooñu ñëpp da leen di fàttali yàlla rek xam nga yëngal gi liñ ci jublu mooy mooy mooy mbégte yëngatu mbégte lañ ci jublu arab yi bu ñu waxee ne fulaanun yahtazu lil makarimi mooy irtaaxa laha loolu lañ jublu mooy bég na rek maanaam da leen di bégal day bégal ambiya yi di bégal ayka yi di bégal arsh ndax sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rot na ci saxihu buxaari saxihu muslim mu wax ne al arshu ihtaza li mawti saad ibni muaz sayidna saad ibni muaz bi mu faatoo aras dafa dafa yëngu yëngu googee nag mooy yëngu mbégte ndax xëy na daje gi mi dajeeg sayidna muaz loolu mbégte la ci moom mën nañ ko tekkee noonu <laughs> mën nañ ko tekkee itam yeneen tekkin yi ko nit yi ko yeneen borom xam ne tekkee loolu dara jëmmi ay wax rek ay way rek fi dafa am jeexit gis nañ eh, Bukhari ki daa masa di dem di tukki gilem yi ñuy war dafa am ñu ko daa ñu ko daa màng ñi koy màng nag da ci am ku wax an koo xam ni dara way bu wayee nag giléem yi dañuy daw loo xam ni duñ ko dawuñu ko daw waaye bu noppee nag xëy na dañu duñ daw loola bu masaa di di way wayam yooyu giléem yi dañuy daw bu baax a baax ba jigéen ñi ne ci kaw giléem yi xaw a am ab coono wala ñu nar am jafe-jafe yonente bi nag da ko daa wax ne ko eh, eh, way xaka yaa an jësa ruwaydaka bil qawaarir beneen riwaay mu ne ko urjeseetu way xakka bil xawaarir mooy mooy yërëmal jigéen ñi ci kaw giléem yi ndax boo dee way eh, sa bayit yi di jàng sa xasida yi giléem yi dañuy daw luñ mësta daw te ba jigéen ñi mën nañoo daan wala leen moo tax yërëmal jigéen ñi loolu yonte bi da ko mi ngi xadis mi ngi ci Buxaari mooy li Busayri yu waxoon ne ma rannaxat adabatil baani riixu saba وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغم آه، آه، منك يونت صلى الله عليه وسلم وخلنا لكن كعب بن زهير كرب بما خير قصيدة منك بانت سعاد فقلب اليوم مط أجيت بيرو مهون يونت بلا سمي ببم جاكو سمي مقبيتم كرب بكو شخصي دي وخير بيت بيتمين يرضى إذا جرت الأمور مسلما علما بأن إلهه أجرا لا تحجب الأسباب عنه حقيقة انتهى في ظلمات منتهى دفعني الآن مدحنا كن لول جناو يونتي وخي ملون جناو يونتي لي دوغ أقايو باهي كن منا دوغ مرد بني لول موي غاتلغي غاتلغي لول موي لشيخ أبو مدينة الغوث وخن وقل للذي ينهى عن الوجد أهله ذق معنا شراب الهوى دعنا إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء تمايلت الأشباح ولا نعم ترقش الأشباح يا جاهل المعنى فما تنظر الطير المقفز يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى يخرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعداء في الحس والمعنى كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى أنلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع صبر من شاهد المعنى فيا حادي قم واشد قائما وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا dafa wax ne wajdu mooy nga xam ne la gaa yëg ci seen xol ci bu déglu njàngum xasida wala alquran wala yi ni demee boo ko mën boo ko daal boo ne nee na booy noppi daal yow te bañ cee wax ndax ah loolu lu ñuy mos la ruux yi ñooy fàttaliku seen borom ndax ñoom dëkkuñu woon fii nii ruux bu fakkee ne ruux xam nga dëkkul fii nii adduna bi ñu ne dëkku fi woon dafay ñëw rek gën a si bi saa fàttalikoo nag fa mu woon fa suñ borom inna ilayhi rajiuna bu ko fàttalikoo nag dootu am jàmm cofeel gu rëy mooy moo koy dugg mu am aw yëngu boobu yi nag di xew ci biiram mooy wajdu mooy jël yooyu euh, da ko misaal nag ci picc mi nga xam ne dañ ko jàpp tëj ko ci ak kaaf mu sore ay bokkam nee na su fàttalikoo bërëb ba mu jóge woon rek afam bàyyi ay goneem ak ay mbokki piccam nee na dana am yëg-yëg xol boo xam ni du ko mën a misaal ne rek nga gis muy wayantu ngir bëgg a woyofal li ne ci xolam ruux yi ñi nga xam ne ñoo bëgg yàlla seen ruux daa dëkkul fii nii dafa jóge fa suñ borom foofee nag la ñuy fàttaliku mu leen di jural nag ay xeeti cofeel ak xeeti yëg yu kawe kawe yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax kenn ni mu ko kenn mëne su ko mëne su ko leeral ci boppam nee na kooku it boo nekk loolu mëne su ko muñ liggéeyu yoogu ak cofeel googu ñu am ci seen borom yal na yàlla defal tawfeex loolu mooy gàttalu ni eh, eh, jàng xasida ak yuux yeeg daana jël yooyu nga ci wax ne wallahu taala alam